Abdoulaye Fane maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay euh, sant Awa. alors ngay njiitu euh, kuréel gi nga xamante ne nag euh, moo ëmb parents d'élèves euh, étudiants yi ak ñi nga xamante ne ñooy élèves yi fii ci Sénégal mu UNAPES ñu gis nag ne bu ñu sukkandikoo ci jëriñ gi ñu dénk jàngale mu kawe mi di Abdourahmane Diouf bachelier yëpp daañu leen orienté fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre ngir ñu mën a tàmbali cours yi ñaar fukki fa ak benn ci weeru octobre ndax loolu daana mën a am bu ñu sukkandikoo rek ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum orientation. waaw bala euh, ñuy tàmbali dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte daaw jafe woon na loolu te yàlla dimbali nañu ba année scolaire beeg université bi dal di am ba examen yeeg concours yeeg yëpp ñu dal di koy def ci anam ñu mu waree donc euh, li am solo ba am solo rek mooy comme dañuy dégmal ubbite école bi te bu ñu nee école bi ko dalee ci ñu tànk yi préscolaire ba université dañu bëgg ren ñaar yëpp dal di méngoo méngoo defe naa dal di ñu tàmbali doo ñoom ñaar yëpp ñaari école yëpp je ko ak loolu euh, lu ñuy rafetlu la waaye nag ni ñu koy waxee mënoo xëy rek dal di ne lépp na dal di kii il ay matukaay yoo war nañ ko jël bu boobaa euh, ministère yi bu lëkkaloo rek dal di waxtaan dinañu mën a créer benn commission interministérielle boo xam ne bii dafay euh, saytu jafe-jafe yëpp pour fexe ba ñu ngi leen jàngale ci euh, secteur yooyu. Mhm. mën euh, ñoŋ daal. mais yéexte bi lan moo koy waral saa su ne dañuy gis ne bachelier bu ñu leen war a orienté rek da ci am retard ana lan mooy waral lu ni mel. xam nga paradoxe bi moom mooy jamono yi ñuy bindu parce que ñu ñun dañuy jàng bay def université bu boobaat da nga daa bindu dem rectorat. fixe yu bag yi daal lay bind léegi nag dafa am xara xarala yu bees yoo xam ne dafa ñëw dal di ci euh, yokku ñu yaakaaroon ne bu fekkee ne xarala yu bees yi dafa ñëw yokkuti te lay gën a yombee parce que fa nga nekk war nga mën a bindu si plateforme Campusen boobu ñuy wax mu yomb lool mais li ñu gis mooy ñaari jafe-jafe jafe-jafe bi gën mooy am na ñoo xam ne dañuy dugg ci plateforme bi am ay jafe-jafe pour inscrire ce qui veut dire que loolu wàllu informatique bi la xaraw yëpp lay bees beneen euh, bi moom mooy ñi nga xam ne ni suñuy doom yi nekk yenn gox goxaan yu sori yi te ñooñu si amuñu signal internet amuñu signal sax télévision sax amu fa par ñu mel noonu bu fekkee ne ñu bëgg ñu dal di ñëw dal di bind ci ay campusen te jamono ji toll am nañu si bari ñoo xam ne ñu ngi seen tool yi di bindal seen wéyjur di day ak yooyu dafa boobu jafe-jafe la pour saafaraal ko nag ñun li ñu gis moom mooy ministère bi rek mënul régler bi muy enseignement supérieur élèves yi nga xam ni ñoom ñoom ñoo am ay bac am bac wala a dem université fi mu ne nii ba tey au moment où ay élèves ministère de l' éducation nationale la mais bu nañu créé benn commission interministérielle muy ministère de l' éducation nationale euh, ministère de l' enseignement supérieur bien sûr ministère de de même ministère des collectivités territoriale ministère de, de des forces je crois que bu créé ko euh, boole ceeg ma aussi euh, kuréel yi mel ni suñuy kuréel yi nga xam ne dañuy dañuy ciy jàpp defe naa ne bu ñu ko créé au niveau de chaque département ba pare ñu dal di fexe ba ci inspection éducation formation bi nga xam ne bi mu relevé ci ministère de l' éducation nationale ñu créé fa benn espace boo xam ne bi dañ fay teg ay machine bu ko defee ñëpp ñi nga xam ne ñi ñu nekk ci gox goxaan ñu dal ñu dal di defe naa ne loolu day gën a yomb bu boobaa ku ñëw rek dañu inscrire moom moo moom moo gën a kii bu boobaa je crois que li nga xam ne nag moom mooy euh, la des mais ministère bi mën ko rek lii ci fii sax moom mooy dañu ne octobre bi bu école bi ubbi euh, moyen secondaire bi moo université dañu bëgg mu ubbi te loolu ñu ngi koy rafetlu bu fekkee ne am na je crois que dysfonctionnement dootul ci système éducatif hmm. waaye nag am na ay préalable yoo xam ne bu ñu ko tegul defe naa ne dina jafe lool parce que gàcce mënul passé euh, ci gouvernement bi ñu dal di toog ba dal di organiser baccalauréat ñëpp xale yi am am ñu naan leen inscrire yu leen a ñu kenn xamul te loolu wax dëgg yàlla war nañu dépasser loolu. voilà yaa ngi ko doon junj cinq muy at vingt gile 2024 cinq année universitaire bi euh, ba moytul euh, yenn bachelier yi tamit ñu leen orienté waa ci établissement privé yi ca boobee jamono ñu xam ne nag euh, gouvernement bi amel na dette yenn école yi pour yow ndax loolu yëpp daana mën a régler donte am na loo xamante ne jot nañ ko fay. xam nga loolu yàgg na aw. Hmm. ndaxte war na def peut-être ay ñett ba ñeenti at ci ginnaaw boobu sax Euh, de pendant temps yooyu moom moo doonoon ministre la l' enseignement supérieur euh, mënuñu comprendre am réew mu organiser wu boo xam dafa inscrire dans la normalité yow nga dal di am ay bat parce que war nga xayma parce que chaque fois balaa at mi di ñëw war nga def kat benn kii euh, étude boo xam ne bi da naan ci nombre d' étudiants yi li ñu toll war na mën a am temps boo xam ne bi war na mën a admettre mais bu boobaa nga teg dispositif bi dispositif d'accueil bi moom mooy université yi ubbeeku premier problème bi mooy état des lieux suñu université Sénégal yi même ratio bi sax dafa tuuti mënuñu comprend lu toll ni Sénégal oriental région de Tambacounda cinquante neuf mille kilomètres carrés je connais très bien parce que man servir naa zone boobu ci euh, presque région de Kédougou amuñu université amuñu université donc euh, fi ñuy war a wax moom mooy foofu peut-être loolu nag mën na doon fii ak juróomi at jëm fukki at waaye nañu def de telle sorte que bu boobaa bu ñu ko defoon tey xale yi nga xam ne mu nga jóge ci gox goxaan yi mais fan mën nañ ñoom kii dugg ñeem Tambacounda ainsi de suite bu boobaa je crois que am excellent boo xam ne bi dañuy ñëw jóge foofu am ay difficulté pour mën a jàng sax parce que yenn saa yi dafa am ñoo xam ne dañu am ay ay famille d'accueil ah léegi nag bañ leen dugalee nag ci université privée yooyu xam naa ne am na cadre unitaire école université privée yoo xam ne yi ba ñu doon ñaxtu yoroon la leen leen temps yooyu ay milliards waxuma ay millions de mais ay milliards ah université privée yooyu dañuy fonctionner parce que dañu am ay charges luy ay locaux di fay ay enseignants ak yeneen ak yeneen mais ñooñu bu fekkee ne accepté nañu ay étudiants yoo xam ne ci université privée yi lañu waroon a nekk. li ñu waroon a def mooy bala ñuy ñëw sax dugg ci école yi université yi dañu waroon a dëkk génne même bu dee benn montant boo xam ne bu cinquante pour cent ñoo xam bu ko defee xale yi mën a jàng xale yooyu aussi parce que ñun daan nañu waxtaan ak ñoom dañuy am problème sax même bu fekkee ne dañ leen orienté ci euh, université institut supérieur yooyu parce que quelquefois pour ñu accéder ci campus pédagogique bi war a mën a wu ci bibliothèque bi ak commodité yi nga xam ne moom la étudiant am muy Cheikh Anta Diop wala Gaston Berger mais ñoom am na dañuy am ay frustration yoo xam ne dañ koy dund ci université privée yooyu donc loolu il faut que gouvernement bi ministère de l'enseignement supérieur mu woo ñëpp dégg naa woowoon na leen mais nañ ko yaatal même jar na sax ay institutions yi comme assemblée nationale ay mel noonu ñu war a mën a toog mu mën a am ay partie garante seede yoo xam ne bu fekkee ne ku nekk jël na ay mesures ñooñu mën a ñëw teew dal di koy seede je crois que disposition ko defee ba pare organiser un séminaire de rentrée universitaire comme ni ko ministère de l' éducation nationale bi defee parce que ñoom il doit beaucoup apprendre du ministère de l' éducation nationale. Mhm. ministère de l' éducation nationale dañuy jëkk a def ay CDD ay réunion ci préfet yi mais mën nañ def ay CRD chaque euh, euh, région boo xam ne bi am na université ñoom ñu xaymal seen jafe-jafe yëpp après ñu dal di daje benn séminaire de rentrée moo xam muy ñetti fan wala ñeenti fan boo xam ne bii ku nekk dañoo indi ay jafe ak ay proposition de solution. composante yi bu ñu toogee je crois que dinañu war a mën a trouver une solution mais comme ni ñu koy waxee li ñuul ci mbir mi daal ci soow mi moom mooy bor boobu ñu yoreel école université privée yi te atte bor xëy li am solo moom mooy bor du am rak nañu éponger dette ba pare nag bu fekkee ne dañuy ubbiwaat euh, euh, yooyu mu université privée yi ak pour étudiants yi ñu dal di koy wax ci ay anam yu leer signé ay protocole moom ay partie garantie yoo xam ne dinañu mën a toog doon ay seede ëllëg ak si biir muy gouvernement bi wala privé yi ku ci def li nga xam ne waroo def ñun ñu dal di koy dénoncé alors direction générale mhm, direction générale bi nga xam te ne moo yor jàngale mu kaw mi tamit annoncé woon na euh, lii di ibiti euh, plateforme Campus Sène euh, juróom ñaari fan ci weeru ut ba léegi waaye ñu gis ne ñenn ñi ñoo ngi am ay jafe-jafe ngir mën a dugg ci plateforme boobu lii pour yow lan moo waral situation bi. xam nga la ma waxoon réew mi ñun yenn saa yi dañuy xaw nax suñu bopp man nga nekk Ndakaaru nag wala Thiès. wala yenn dëkk yu mat yi nga xam ne boo bësee rek internet loo soxla ci àddina bi dina am ko mais am na ay zone yoo xam ne ma ne amu am am am na ci suñu dëkk dëkkwaan yoo xam ne pour nga gis euh, kii euh, portable tactile yi problème la xale bi bu demee dal di vacance dal di dem war a dimbale ay waajuram ci wàllu mbéy mi tool bi sàmm yeeg yooyu mais fa mu nekk sax dèjà doo ko jot pour pour woo ko ci téléphone naan ko ubbi nañu ay campus nag yu kenn xamul. li ma wax mooy ñëwaat nañu jël inspection de l' éducation et de la formation yii nga xam ne éducation nationale la ñu créé fa ay bureau ubbi ko ay machine bu ko defee dinañu war a a def de telle sorte mu nekk fa nga nekk lu mu sori sori nga dal di ñëw inscrit dal di delluwaat ci say ci say mbir hmm. je crois que loolu aussi synergie la il faudrait que ministère yi di am habitude di liggéey seen ensemble mais cloisonnement sectoriel bi baaxul ku nekk dal di beru bu boobaa ku nekk dina am jafe-jafe du xam la kii alors que à côté am na ku ko mën a saafara donc je crois que ministère de l'enseignement supérieur aussi moom moo war a parce que baccalauréat bi dafa di comme ni ma ko waxee euh, ministère yi ko ŋànk ak structure yi dañoo bari donc euh, bu fekkee ne def nañu loolu rek hmm. organiser un séminaire de rentrée wala même pourquoi pas aller plus loin comme ni ñu defee ouverture des classes euh, examen yi le nouveau gouvernement ñu ngi ñu ngi rafetlu li mu di def un conseil interministériel ça veut dire de préparer les examens et concours mais pourquoi pas même un conseil interministériel boo xam ne bi dafay préparer waxuma la rentrée universitaire rek mais rentrée université ak école de formation professionnelle yi ak également euh, école euh, euh, ministre yu ministère de l' éducation nationale maintenant loolu bu ñu ko defoon mm. ministère yëpp toog ñu dal di ku nekk wax li ngay wax le ministre le premier ministre dal di ay mesures comme ni ma ko defoon pour bii passé bu boobaa dina mën a permettre ministre bu nekk la ñu ko wax mu dal di koy mën a suivre mu am un tableau de bord ñu koy def nag ay évaluation à mi parcours chaque semaine wala chaque euh, quinze jours mu dal di xayma bu ko defee vraiment lii war nañ ko weesu ay kii inscrire naag dugal na fële plateforme bi marché loolu wax dëgg yàlla war nañ ko weesu daal. mais nan nga gisee tamit organisation commission d'orientation bachelier yi. waaw commission d'orientation yi nag ñun xamuñu ci lu bari comme ni ma ko waxee woon ci tubaab rek waaye xam na bu fekkee ne déggoo kenn ku ñaxtu ça veut dire que orientation yi ñu ngi li ma yaakaar comme que nag ci benn ñaxtu am nañ ko yaakaar et je crois que commission d'orientation même bu fekkee ne am na dina créer ay buntu yoo xam ne képp koo xam ne kii la mu ñaanoon bon euh, amu ko te mu nekk ci droit moom mu dal dina war am possibilité pour mën a def recours bu boobaa ñu dal di reconsidérer la mu la mu la mu kii woon. mais est-ce waruñoo renforcer mhm. ay jafe-jafe am ci wàllu woowu. Mhm. waruñoo renforcer yi tamit euh, recrutement wu waaw loolu moom dafa di euh, jafe-jafe bu am ci système ci système bi parce que mooy li ma doon wax léegi rek bu fekkee da ngay xayma ci wàllu euh, étudiants yi gën a bari. nga ubbi ay université mais la ca topp moom mooy nga dem di recruter enseignant hmm. du enseignant chercheur rek enseignant personnel administratif technique et de service mooy ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration université yooyu da nga leen war a recruter ay gardiens ainsi de bu ko defee dispositif boobu bu ñu utilisé dina mën a permettre quand même lépp loo xam ne ay ay ay day yomb day yombal. xale yi seenum jàng donc euh, xam naa ne temps yi passé Euh, am na ay euh, appel à candidature yoo xam ne ñu ko doon pour ay euh, enseignants. Hmm. université yi parce que man mii wax ak yow membre laa ci conseil d' administration bi université Amadou Mahtar Mbow. temps yii passé suñu dernière réunion conseil administration bi am na ay appel à candidature yoo xam ne woon nañ ba ñu dal koy étudier dañ koy war a delloo war nag au niveau du rectorat ñoom dal di seet nan lañ leen di recruter donc wàllu woowu def ko nag mu ngi ñoom te ñun it euh, dinañu veiller parce que yaakaar nañu ne ñu toog ñu daal di ne euh, par exemple benn domaine scientifique diw professeur ñu daal di ñëw amphithéâtre tel gis enseignant ba parce que bu ñu laajee ñu lay enseignant amuñu loolu moom def na ko loolu moom hmm. xalaatuñu moom hmm. ñu jeexalee rek ak li nga xam te ne mooy résultat baccalauréat yi lu toll que 53 pour cent ana nan nga ko jàngatee. waaw résultat yi moom comme ni ma koy faral di waxee rek man damay làmbee toujours maanaam damay inversé. bu ñu nee par exemple euh, soixante dix pour cent euh, man dama naan trente pour cent d'échec waaw euh, gis nañ ni ñëpp wàcc na bu fekkee da ngay analyser aussi da maanaam fa mu parce que boo ko seetee ay juróomi at système éducatif bi université bi amul benn stabilité sur le plan social grève yi ñaxtu ba pare ñu dawal feebar bi fi amul mbas mi li ci gën a yokk mooy daaw problème politique yi nga xam ne dem nañu ba taal ay école même université yi sës yi donc yooyu je crois que loolu bu fekkee ne dajaloo la donc euh, lii parce que dina tax euh, résultat yi ko parce que xale yi jàng ba respecté quantum horaire donc euh, incidence yi léegi nag ce qui va faire falloir faire mooy vraiment corriger et comme ni ma ko waxee ci tubaab aussi ñu jéem a def de telle sorte que au niveau de nos universités des médiateurs de l'université là muy structure yoo xam ne yi bu amee ay jafe-jafe wala bu jafe-jafe yi ñu koy séntu ñu jéem a daw dal di koy dabu dal di waxtaan te médiateur de la république mu nekk am équipe boo xam ne bii euh, day am ay représentants wu étudiants yi corps professoral bi ak euh, peut-être parents d'élèves yi étudiants yi je crois que ñooñu bu ñuy wëree médiateur bi dina am jafe-jafe yoo xam ne bu fekkee ne dañu ko dafa nar a ñëw wala ñu yëpp ñu ko saafara dinañ ci mën a kii parce que am ne bu fekkee ne rek lañ def au niveau de l'université jarul sax mu yegg ministère parce que euh, à l'image du du du comité de bi am ministère de war na a am ci ay médiateurs mu doon ay autorités yi nag yoo xam ne yu nëb bokkuñu fenn faruñu fenn politikuñu nga xam ne dañ leen déglu jox leen cër nga xam ne bu ñu wootee. étudiants yeeg ñëpp ñu mën a toog ñu mën a waxtaan. très bien euh, mhm. en tout cas Abdoulaye Fane jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu kuréel gi ëmb parents d'élèves ak étudiants yi nekk fii ci Sénégal di UNAPES ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. peut-être euh, bala may jeexal rek dama la wax suba dañu am suñu benn mbokk bu wéy bi ñu ndongo la euh, bu nekk dëkk bi nga Maka Yok mooy département de Koungheul mu amoon xarañ ci wàllu njàng njàngale mi dafa wàcc liggéey altine ba lay passé. donc ñun ñu ngi ciy profité di ko jaale njaboot yëpp di ñaan yal na ko yàlla hmm. euh, di leen ko jaale bu baax a baax jërëjëf. merci.